wassalaamu ala abdulkarim muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi zil gufraani walkarami summa salaaman hada alqali kullihimi alhamdulillahi lama qad qada watari min baadi ma kuntu za faqrin wa sadari hamdan yukaafi mazidan minhu fi lhusari summa salaatu ala almuxtaari min mudari xayri albariyati min baakin wa muktasimi sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraa'i salli wa sallim ala almutammim wa kulli azim bil intihaa'i subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke borom Tuubaa assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo leen di nuyu di àddoo ci kër gi di as TV di nuyu bu baax kilifa kër gi Cheikh Abdou Samad di ñaan sun borom yàggal ko te wéral ko yéene ji mu am ci liggéey lislaam di ko jaare ci borom tubaa yàlla sun mborom defal ko ci la kaw njortam ñoo ngi nuyu bu baax mboolem koo xam ne yaa ngi topp sunu kàddu ci émission bii ñu tuddee daara yi Serigne Mbaye Diakhaté Serigne Mbaye Diakhaté mi nga xam ne bokk na ci werekaanu borom tubaa yi nga xam ne borom Touba moo leen di waxloo Serigne Mbaye nag doon koo xam ne ab jàngalaakoon la day jàngale lépp loo xam ne nag ci àddina maanaam xew na te nga bëgg caa xam naka ngay def ba jariñoo loola wala naka ngay def ba mucc ci loola bu la yàlla dimbilee ba nga dajeek woy woo xam ne Serigne Mbaye Jaxate woy na ko ci di nga xam fa ngay teg sa tànk te nag ñu àndi bunt boo xam ne Serigne bay Diakhate da ciy dimbali ki nga xam ne daa bëgg lu baax te nekk ci lu baax guddi ak bëccëg te bëgg caa jariñu muy bañ kooka dem ba naagu walla mu gis boppam mu mel ne kon kiy sàkku ngërëm ti sëñ Mbay njëkk a moom mooy yow mii di sàkku ngërëm luy wéy di wéy laxasul te sànni àddina mais daa sànk waaju xamul dawal te bul geesu boo geesoo mu geesu la te kon mu dog la ba dootoo dem ba far la la jël àddina moomu moo daa werantelu tey fas tey sikkim di xatal xolub jullit ba mu naasaa mbokki mi ma xatal yàqal na mbokk ya woon yàqal na mbokk yi tey àddina mii ku ko dut daw foo ko gis féragut àddina day naxe tey yootee ka fiire na ay te nax na gaa yi fi daa xeex ak ñi daa wuti pal mboolem ku daa xare tey jii kooka tàbbi na pax te seeni doom a ngi des fii nag di jooye ko xul ku jaayi saq jëndey kolkol sa njëg gajarul ku jaay bakkan jënde koom réewut seen nag tonawut loolu kon day jara leer lan mooy sàq ak lan mooy kolkol sàqum dugub ci jamono bii mi ngi mel ni magasin bi ñuy denc ab dund léegi mu ne ki nga xam dafa jaay am sàqum dugub nag mooy ki nga xam ne dafa jaay magasin dugub magasin dundam jënde ko benn kolkolu cere kooku ku ne xam ne perte na lam lay junj foofu mooy képp koo xam ne jënde nga àddina ji nga jënde ko àllaaxira wala allaaxira boo nga jënde ko àddina diggante boobu lay wax ku jaay àddina jënde ko allaaxira sa njëg tunu na waaye ku jaay allaaxira jënde ko àddina mi ngi mel ni ku jaay sàqum dugub jënde koy kolkol moo tax sëñ bay naan ku jaay sàq jëndey kolkol sa njëg gajarul ku jaay bakkan jënde koom réew it sa njëg tënawut kuy dund nag bu mu fàttee dee nay jëf te jëf lu rafet kon bés bu dee dee malaaka yëg si naa ko bégal ñu ne ko lu tax loolu mu ne lu toll ne aljana dee jëf ba jëf lu ko jar te moo ne dee mooy bay moy lu jar tegu xal mooy yàlla moo mat a daw ak topp moo mat a wut lii moo di yoonu musal lii moo di yoonu dugal kuy roy nag na roy waaja xam yàlla tey topp yàlla moo mat a roy kooro yi ku kile loo am nag na sedd sa xol ndax gaa yaa ngi ngir yaa ngi koo gis nag am na ngir ma mu aw waaye yow teeyal ba xam fa nga jëm bul def ku jóg nga àndal sun boole nan tuubi lu nu daa mooy diggante jëw ak war ak rambaaj ak di wax lu amut daa neeka noo neeka dóoranteeka tuddaayib naafiq yaa ko fi daa def ngir gëréeri mbugal jullit dafay julli tey wér daaka sàmmi cëram tey fonk kóllëre moo jaa ak njullit lu nu mel nanu jëf te sellal sunuy jëf jëf ju sella di tax yàllay gërëm aji jëf moo tax na ni yéwénal ku jëf lu sellut du am jaajëf du noppalu it ku xam lu jar dagu dag goo xam ne dee su ko fal xamal ne yàllaa ngi lay gis foo fi jëm jagalal bul mel ni kuy jëf lu bon tey fas na yàlla gisut jaamul te farlu ba ngay ndaw moo la saytu ba tey di wërsëgal ak a faj say aajo ak di teral ko bul fàtte xéewal yii mu lay may may te kër dëgg santal lii la yàlla defal sëriñ bi fonk la ak doomam yi réeki rakkam moo lii ku jëf lu ko jar santal ba mel donte dama sant nag kem suuf ak malaaka yi kat du tax ma jox bamba mi xaqam de moo ma naal donte dama sant kem suuf ak malaaka yi kat du tax ma jox bamba mi xaqam de moo ma naal bambaa ma yar may ma xam-xam ak alal ju ma saa wax du juy fen ne man xam naa ne fen daganut man rekk maa war a bég man rekk maa war a tëb dogonte nag bamba ban maa ngi fi na ma dal woo naa sunu texe ñun gaa yi ko def sunu mbër te xam ne mooy xala ub ku yux mbër texewut ñun ñoo ngi duñ dëkk mbër duñ def lu di ko woy tey diw gannaawam te buy daanet ñu dem ko bësal ñun ñoo ngi duñ dëkk mbër duñ def lu di ko woy tey diw gannaawam te buy daanet ñu dem ko bësal woy boo ko seetee fi muy jeexee sëriñ Mbay da ciy waxaale moom li ko boroom tubaa defal yëg-yëg bi mu ci am waaye am na ay saraa yu am ci biir woy wi daf ne kuy roy na roy waaju xam yàlla tey topp yàlla kooku moo mat roy moom la borom Tuubaa dox naan walaazimu man laa yazaalu abida li rabbihi qaida ila hudaw walaazimu da nga maam da man ka nga xam ne laa yazaal du deñ abida di jaamu li rabbihi borom nee daal bu nekkee ne bëgg nga ànd ak jëmm seetal koo xam ne saa su ne jaamu yàlla rek mooy yitteem te yàlla tax waaye xaayidaa day doon kuy wommatee ilaa hudaa day teg ci ak njub kon booy wut xarit wutal xarit boo xam ne jaamu ko te yàlla la waaye da lay wommat jëmali ci ak njub moom la sëñ bay naan kuy roy na roy waaja xam tey topp moomata roy ku roy ku dul nag loo am na sedd sa ñu ne ko loo bëgg a wax mu ne ah gaa yaa ngi nii ngir yaa ngi nii gaa yi mooy jëwriñ yi wala mooy ku woote boppam ab sériñ mooy ak seex walla kuy woote boppam ki kuy woote ci boppam ak imaam lu waay mën a woote rek ngir mbooloo topp la sëñ ba yow lay waxal kon yow miy toppee xool ak ngay topp mu a gaa yaa ngi ngir yaa ngi koo gis am na ngir ma mu aw teeyal yow ba xam fa nga jëm bul def ku jóg nga àndal tey jii bu nekk danga dem garaas war a dem Tambacounda nga ëppal mbala nga ñàkk a ba dugg oto bu jëm ndakaar yaakaar naa ne bu déparé ba addinay tukki boo wañu ko doo doo yegg Tamba loolu la sëñ Bay daa mu mel nag tiim nañ ci woy woo xam ne moom la lay lay taayee woy woowu kon bu la sëñ Bay soññee ba tax nga jóg nag jublu sa borom na da ngay jaamu yàlla foofu nag day am danger bu amaat mooy boo baaxee ba mbooloo mi di la tagg di la yéem su nee diw ku nekk dar si gémmañ na diw ak a baax ak sell ak a ragal yàlla ak a ak sufiyanke ak a ak yooyu yëpp nee na danger ngi ci ana def sëñ Mbay ne da ngay fexe ba mucc ana nooy muccee mu daal di koy misaal ci aw rab rab mooy lan masalan ak lëkk bu ko dawkat bi dee topp maanaam lu mel ni till wala ab xaj bu ko toppee ngir jàpp ko est-ce que bu ko jàppee dina am njariñ ci lëg gi déedéet bu koy jàpp di ko sànk kon ki nga xam ne siiw na ci baax war naa daw noonu rab boobu di dawee balaa koo seytaane jàpp sëñ bay daan dawal baraw noo ngi lay yuuxoo ka soow aka naw tew rab bu koy xaj di bëw na yokk xel rëwagul bu aw rab bu ne meng dootoo seeru xaj bu ko bëw ku dee fi yéem a kannaw ko kee asal rawagut moo tax léeg-léeg ngay gis benn jaamukatu yàlla boo xam ne day jékki-jékki rek ne meng kenn du xam ci dara ñu ne sëñ bi daa tëju ay nangami weer sëñ bi daa tëju daaw ba rek kenn gisu ko la ëpp ci li ñu tëju loolu képp la bëgg a mucc ci bàjju bii di seytaane ndax jaamukatu yàlla dëgg soo ko dee tagg ci jaamu gi muy jaamu yàlla du gërëm loolu la ngay def ndax moom lam ci jublu mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sunu borom moo ne bindu ma nit ak jinne lu ñu jaaw ma moom mu yëg loola di def loola te yàlla tax yow loolu moo la war defatoo ko yow di ko tagg di ko joobe kooku day mel da nga koy yàqal da nga koy génne diggante mag boromam ndax sëñ bay jax dafa ne juddoo ki jur mët la ndamoo ragal yàlla mata ndamoo te ku ko am du ko damoo ndax dootu gis baaxam nga sax nit ki nga xam ne jàpput ne daa baax ndax ragal yàlla kooku boo ko toppee da baax da nangam da nangam yaa ngi dox digganteem ak borom te yëgoo ko kon aw rab bu ne meng dootoo seeru xaj bu ko mow ku dee fii yee ma ka naw kookee asar rawagul ñu ko loo ñu bëgg a misaal noonu mu ne xoolal ci fii may wax ci diggante biddiw ak weer ak jant kon mel na ni biddiw lu leer la waaye weer ko gën a leer jant lu leer la waaye nag. maanaam weer lu leer la waaye ba tey jant moo ko gën a leer mu ne marax bu maasee ñu naa biddiw bu leer a nga ne weerit bu fenkee ñu naa leeram nga ëpp na xel te xam ne jant bu fenkee kenn du yéem aka naw ku dee fi yéem aka naw koosee kookee asal rawagul kon tey jii ki nga xam ne moom ab leeraayam ci biddiw la yem su nekkee day wane boppam fu dem di wane moom ab jaamukatu yàlla la ku ragal yàlla la ab sufiyanke la kuy dund tasawuf kuy dund sunna la kuy dund kuy dund kuy dund lu ma di ko fisal jombut fa mu koy wane am na ko xam ne moom yor na leer guy tolloog maanaam ab ab ab kon kooku mel na ni fa muy jaayee laalo daa mel ni cere wuñ fa dañ daan jaayee laalo fa ni cere kooku mel na ni fa muy wanee boppam am na ku ko gën a leer fopp gën koo ragal yàlla fopp gën koo dox fopp te ma nga nëbbu boppam ndax xam ne wone wu gi jëru ko borom Tuubaa masax ci mag ñi kenn ne ko neel fere yi nanoo wàññi ndamu bi ban bis penc démb la woon am na wooy woo xam ne sax sëñ bay danaan ku xamoon ba xam mbooleem li malayka yi xam ak yonent yi jëfoo xam nga faj ci la mooy xam nga amul njariñ ku jëfoon ba jëf mbooleem li malayka yi yëpp jëf ak li yonent yi yëpp jëf te sellaloo jëf ja jëf jëf faj ci lelef def du la amal njariñ ku jëfoon mbooleem li malayka yi jëf ak lu yonent yi jëf te sellal te xamoon na sa boroom nangu na koom déet nee na sa xel warta dal kon loolu lu jën a bàyyi xel la kon woy wi mën naa jàll kon ki nga xam ne nag moom ab leeraay mi ngi tolloog weer moom bu mu nekkee ne da koo imposer rek na bàyyi xel na jant mi ngi ci wetam kon noonu la ko leere waaye am na nag fenn fu mu ko leeralaat ci wàllu ndox kon barab yi am ndox wuute nan mu ne sayaan a ngi déeg a ngi ab teen a ngi dex a ngi te géej a ngi ëpp leenum ndox xarit xalamal teewut nag ku nekk ci samkem ngay mënee amu tur ku am ci sam kemu saw ngañ rot na asal waaw kay foofa dafa bëgg yow mi nga xam ne tu tànk nga soobu di jàng alxuraan di jàng xasida di naafila di dem ci jàkk yi yàlla rek tax nee na yow pour nga ngay màndaxalanteeg sa bopp ak mag ñi jaru ko seetal kon bu nekkee mënta ñàkk gone ni yow ndax booba sayaan nga xam nga sayaan bu nekkee ne day jaay tiitar géej mi ngi ci erreur ab léegit bu nekkee mi ngi jaay tiitër géej te géej ko ëpp ndox mi ngi ci tiitër kon foofa ab soññe la boo xam ne jubluwaay bi yëpp mooy ku képp kuy jaamu yàlla def ko te yàlla rekk tax yemale jaamu yàlla ak tabbi sawara ak ñàkk jaamu yàlla ak tabbi àjjana mu leer na la yow kon sun borom moo la ko digal nga jaamoo yàlla ngir waaye jaamu mooy mooy moytuwoo sa borom ay téereem ngir sawara kon wooyu ba tey mën naa jàll mu wax ne sayaan a ngi déeg ngi ab teen ngi dex ngi te géej ngi ëpp leenum ndox xarit xalamal téewut ku nekk ci sem kem ngay manee amu tur ko am ci sem kemu saw nga ñu rot na asal daan ne gasal tiwi yow kon lan mooy ba tey lan mooy gasal tiwi mooy ki nga xam day wut ngërëmal yàlla sëñ Mbay da ko misaale ne kuy gas ab teen teen nag gas bi par sens la man ngaa gas un mètre jot ndox mi 2 mètres 3 mètres ba 10 mètres profondeur waaye mën ngaa dem ba quinze mètres doo amam ndox kon kii wut ngërëmal yàlla la sëñ Mbay di soññi fii ci wàllu gasub teen ana mooy loolu mu ne gasal tiwi yow te bul geesooti jal ba nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën gi ndam du ko am mooy ki nga xam lépp lum jaamu yàlla geesu ko di ko bàyyi xel su toogee ci mbooloo mi sax jékki-jékki fudd daan ne man ne xam naa ne sama tànk yi day métti di biig daal xam naa ne lu toll ak nangami waxtu daal noppalu ma dama doon naafi la rek nga xam ne kon kooku mi ngi gas waaye mi gëstu ab ab jalam gis koo xam ne day xëy jàng ñaar fukki xisib alxuraan bu demee marché ah tey de man te xëy naa naaje naa ñëw de waaye xam naa li ma téewoon mooy sama wax bi jàng man de sëñ bi saa yu ma xëyee ñaar fukki xisib alxuraan laay jàng kooku mi ngi gas waaye mi ngi gëstu ab jalam ki nga xam ne saa yu jàng maanaam maanaam maanaam li mu xasida ba muy jàng mën na cee jàng juróom-ñaar fukk waaye saa yu xëyee mooy balaa am jàmm day mel ne lami bi day xasan da koy wax kon kooka fan lay mujjee kon loolu la yàq day dimbali kenn sax toog ci mbooloo mi jékki-jékki daa ah, man di dimb daa mel ne la ma yoroon bëggoon naa xëy def ci nanga waaye nag diwa fa ñëw ma ma ma ma am na ma def ak moom mooy di jëf di ko wax loolu la sëñ bay di soññee moo tax kon mu ne gasal tewe yow te bul geesoo te jal ba gas <laughs> kuy gas di geesub jalam lay ngën gi ndam du ko am te jal bu rëy sax du ndam xëy bënn rekk di ndam loo rëy rëyub jal te bënnoo ndam demut dikkagut kon na gas waaye nan xam ne feeg bënnagun xamagun ne am na num ndox bu naagu te bënn bi kat ëllëg yomal xiyaamat ak kabar gi la jëm ndax tey jii nit ki mën naa dem bay faatu seytaane yàqal ko kon yéemale foofu kaddu yi bunt boobu lañ jëloon tey di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen ab dong jërëjëfe borom Tuubaa amul morom